ak euh, Sambou gi consultant communication et planification stratégique. Sambou ñu ngi lay. maa ngi lay fay bu baax. Sambou ñu gis ne feebar bi dugg Sénégal jamono ji dafa am benn élan de solidarité bu ñu bu ñu woote président woote ko mais ñu gis ne euh, politique yi réagiruñ trop. sportif yi lañ doon gis ak euh, musiciens yi ba président sax léegi def genre forcing wala naan dama leen di coppati ci li ngeen yor daal. xam nga xam nga xam nga man dama lay dama bi ma la nuyoo damay li may wax njëkk a wax d'abord mooy damay woo le président de la république solennellement damay woo président de la république parce que élan bu mu nekk dafa di élan boo xamante ne bu extraordinaire ñëpp naw ko ci ñëpp ànd ak moom ci loolu mais dama koy ñaan mu installé li nga xamante ne moom mooy ab kuréel buy chapeauter lépp lu jëm ci wàllu communication man du ma sax wax communication mais information pour que nit ñi mën a jot ci information yi. kon yow da nga jàpp lii ministère di def euh, chaque soir euh, doyul. non xam nga ministère lu muy def gis nga man boo demee sama dëkk fee soirée télévision amu fa pour nga déglu rajo faaw nga jëm nga dem dem dugg Gàmbi dem jëndi batterie ñëw def ko ci sa rajo. est-ce que dégg réseau téléphone amu fa kon man du ma déglu rajo du ma du ma du ma du ma du ma surfer internet duma ma seetaan télé xanaa man bokkuma Sénégal. loolu moo tax nag ma yaakaar ne war na installer benn kuréel boo xamante ne moom defu wàllu jëm ci wàllu coordination de la communication et de l'information kooku bu ko defee lépp li nga xamante ne moom mooy stratégie bi ñu war a tëral ngir rek nit ñi mën a xam exactement feebar bi nii lañ war a def lii lañ warul def pour mu bañu dal ñu réfléchir ci stratégie yoo xamante ne lii mooy arrêter feebar bi parce que mbir mi xam nga lan la balaa ngay naan da ngay faj balaa ngay nekk di décompté balaa ngay nekk di naan lii ngay def nanga ko arrêté ba pare moo tax may woo président de la république mu mettre sur pied cette cellule de d' information cette cellule nationale d' information bi nga xamante ne moom dina dugg ci ruq-ruqaan yi ci au fin fond du Sénégal parce que mari détail feebar bi ñaanuñ ko yàlla bés bu duggee ci àll bi jéey am Italie c'est ce qui s'est passé Italie dafa dugg ci campagne bi en France dafa dugg ci campagne bi bu duggee ci campagne mari de parce que tey dégguma dans aucune communication bien libale boo xamante ne moytu leen cigarette te cigarette tey ci àll bi xam nga lan yan activité lañ am ñaari activité lañ am toog grand place ataaya ak jënd cigarette di mayante loolu peut-être bu ñu ko tegreel bu bu ko tegee cellule de communication cellule d'information boobu mën na xalaat ay genre yooyu stratégie yooyu pour mën a attendre la masse parce que ici il s'agit de communication de masse il s'agit pas de vendre un produit parce que gars yi li ñuy def nii xam nga lan la c'est de la relation publique mooy yor naa produit bi bëgg naa euh, bëgg naa ci wax ba ñu ñu xam ne dafa rafet wala dafa beau wala dafa baax wala jox nañ ma diw Émile Deme moom moom moom moom may may chargé de communication damay def ba nit ñi bëgg Émile ba nit ñi fonk ko parce que xam nit ñi xam lan moom mooy kan li muy gérer lan la fii nekkuñu foofu fii xam fu ñu ne dañ nekk ci loo xamante ne ñëw na eh, am na luy ñëw wax ji foofu la eh, am na luy ñëw moytu leen eh, lii mu ngi ñëw bu mu leen daal kii mu ngi sànni xeer waaf leen loolu mooy information prévention parce que ña nga xamante ne ñëwagul ci ñoom ñoom ngay waxal nekkul ñi nga xamante ne dal na leen ñoom ngay waxal la Chine loolu la def tey ñaata lañ ñoom ñoom loo ëppale woon mais tey fu ñu toll ñu ngi bloqué parce que ñoom dañoo ne ñoom dañuy liggéey pour stopper d'abord affaire bi parce que gis nga ndox buy jógee fële di gàll di ñëw sa néeg mais doo xaar ba mu ñëw nga ne dañ nga koy da nga koy ngecc dañ koy utal solution arrêté ko pour bu ñëwee mu yem foofu le temps que nga dem ci ginnaaw fu mu jógee. nga xool lii fan lan moo ko indi nga faj ko mais fa lañ toll Sénégal am na ay kaa kaa yi nañ ko teg fee ñu xam ne ay kaa la ñii faj faj ko ñi waree yore wallu woow la ñu def mais ñi nga xamante ne dalaguñ leen nan leen jox xibaar yi wér te wóor te anam bu mu mënti nekk pour que ñeneen ban ci jot loolu lay woowee président de la république mu installer la cellule d'inform la cellule nationale d'information parce chaque soir. wala chaque matin di taxaw fii di def point de presse alors que euh, man ca àll ba fële man yëguma lu xew yëguma tiinuma kenn ma nga jógee Gàmbi jóge na Gàmbi wala jaar na frontière ba dugg na sama dëkk boobule xaw ma nu mu ñëwee ma dem fa di nuy ak moom di saafante moom bu ñëwee sam ñuy bokk naan ataaya parce que tout simplement man yëguma télévision la mu wax rajo la mu wax internet la mu wax yëguma ci dara man ma jógee foofu ma dem luuma ma fekk fa askan wa may nuyante moom saafante moom di naan ataaya ña ñëw ca luuma ba am ñi ñëwoon ca luuma ba dem seen dëkk ñoom tamit am ko affaire bi law loolu moo xew France loolu moo xew Italie nañ moytu loolu loo tax ma ciy woo président ci sa question bi tey man dama rus bi ma déggee ñu ne président de la république dafa ne ministre yi kenn ku nekk dama lay dagg lii dafa ruslu ci réew mi ñu ne. un un million xam nga loolu waruñ koon sax xaar les ministres. je pense que la première décision le premier élan de solidarité ci ministre la jóge woon parce que tey boo ne président de la république fii koo gis mu ngi yëngu li mu bëgg bu la président wooyee loo bëgg doon dangay ngay naan dama bëgg nekk ministre kon après président de la ministre moo ñëw donc yow président de la république ci élan bi nga xamante ne ñëpp naw nañ ko mu ne ba woo naa leen ci lii ba ñëpp ànd ci vraiment mu doon décision yoo xam ne décision forte yu président de la république jël ñoom ci conseil de ministres ñoom ñoo waroo ñoom d' abord daje premier ministre amul mais ki nga xamante ne moom mooy secrétaire général à la présidence woo ministre yi ñu leen ah ñun ñoo war a njëkk wuyu président de la république ci woote bi mu woote. boo leen defee conseil des ministres vous prenez ensemble la décision que lii la ñuy teg ñun ministres yi. pour participer ci sa élan de solidarité bi nga woote pour euh, stopper euh, la propagation di coronavirus mais non xaar am lutteurs yi ay mbër yu joxe am joueurs yi euh, footballeurs yu joxe am bonne volonté yi joxe am syndicat yi joxe am musiciens yi joxe yow joxe ba léegi de. même syndicat enseignants yi sax dégg nañu yi nga xamante ne yéen leen yéenay seen tutelle ñoom ñu joxe yéen non non ngeen xaar ba mu président ne leen léegi yéen dama leen di dagg ku nekk un million. te bu nekkoon campagne électorale tey bu desoon sax deux mois campagne kon tey jii ñoom ñëpp bàyyi nañ seen bureau yi ña nga ca koñ ya ña nga ca euh, mbedd di génne ay xaalis yu baree bari di ko dugal pour que nit ñi votel leen pour que nit ñi bëgg leen pour que nit ñi ànd ak ñoom di teg ay di pare na ay mbir yoo xamante ne ay c'est des millions c'est des millions ci parrainage mais li nga doon pare ne fële mais fii boo ko génnee nga def ko mais su la neex nga communiquer su la neex nga bañ communiquer mais bu fekkente ne communication nga ci bëgg ni nga ko doon defee euh, benn benn benn gàmmu wala benn kii mais mën nga ko communiquer nga def ko noonu mais l'essentiel est que ne mooy que ni na am lu jógee ci yow loo xamante ne lu symbolique la bokk ci. élan bi nga xamante ne président de la république son excellence Macky Sall woote na ko mais loolu amul dañ leen woo après ñu naan leen euh, dañ leen di dagg dañ leen quand même nous sommes dans un pays de teranga il faut ñu ñu xam loolu parce que fu ñu toll nii ñëpp dañu ànd ak président de la république mais yow en tant que ministre yow waroo nekk waroo des ci ginnaaw tey ministre yi waroon nañ jël le relais moo tax ma ne la la cellule d'information bi dafa baax waroon nañ jël relais. d'ailleurs le président là dans euh, au niveau euh, ci conseil de ministres mu ngi woo pour ñi informer les maires te waroon nañ jël jël relais bi cellule d'information bu fi nekkoon moom mooy am relais ak les maires ak les conseils municipaux ak les les chefs de village kenn ku nekk ñu xool nu ñuy def ba sensibiliser li nga xamante ne moom mooy coronavirus mais tout est centré au ministère de la santé.